léegi ñi ngi ci li nga xamante ne moom moo di micro bi fii nga xamante ne moom moo di Kër Massar sànq gis ngeen soxna si ñu taxawal muy jaay li nga xamante ne moom moo di masque pour ñu protéger wu ci ñu daal di taxaw ak suñu benn tonton boo xamante moom tamit ci alimentation la doon yëngatu doon na jaay lii nga xamante ne moom moo di ay masque moom tamit sëñ bi nuyu naa la waaw fay naa la Serigne Mbacke Mbacke Mbengue ñu gis ne da doon yëngatu ci alimentation mais bi ñu tëjee sa place da ngaa ci li nga xamante moom moo di masque yi yan jafe-jafe nga ci jot a jànkonteel masque yi kay jafe-jafe bu bett laa am ndax li ngay lu mat takk ci la ma gendarmerie Kër Massar ramas léegi ñu falaat ci grippe ba bët set ak suñuy masque de te bu fekkoon tey rek moo tax du jël juróom-ñetti nit tëj leen ci benn giri ba bët set ñu bokk falaaloo te jëlu fala fanaan ba bët set fay 15000 waaw 15000 francs ngay fay mairie gendarmerie nee na lii du intervention intervention mairie la boo fanaanee ba bët set maam waa mairie ñooy ñëw nga fay 15000 door a génn masque yi ma yoroon accident chef ma masque yi da koy ñàkk parce que day indi contamination waaw loolu laa ñàkkee bagage yi te matoon na 70000 te sama place gi lii ñu tëj lu man weer liggéeyu te damaa yor ay jaboot am soutien soutien de ndax Bazar buñ ko tejé ba légui benn marché déggul ko ba xam tëj lañ ko wér 14 jours la tej tëj marché yi wala wala 8 jours mais Kër Bazar wér ak li yu tégal jaari fan yo yoo xam tëjjiwuñu boole masque yi boo ko ambilaa tamit ñu japp la nga fay 15000 nga fanaan ci kaso bi sax jabot di jaxlé ñu gis né Kër Massar tamit li nga xamante ne moom moo di cas yi wàññeeku na fi lool. waaw kay yi jeex na juróom benn la yamoon ci hôpital bi mais jeex na ñun hôtel sax génn lañ ñun dañu ci hôtel bi génn lañ maam do leen quarantaine seen 14 jours jeex ba ñu leen ya soupçonné woon sax seen 14 jours jeex la fi dal ñun xamuñu affaire bi lu ko téye bo demee ci maire ñu ne préfet bi la bo demee ci euh, euh, ci euh, gaayé tamit ñu ne ba légui boy lool kon dal yow tëj nañ sa place bi nga doon jaayé lek nga jël bëgg suturu la say njabot nga défar ay masque diko jaay ñu ramass la té ñom ñoo diglé nit ñi nañ tak ay masque wa masque yi ci téeri laa ko doon jëlé bé dafa àndoon ak norme bi àndoon la norme yi ba àndal yëpp parce que dama koy paqueté manam tam duma ko laal sama loxo te zel foko ko fekk bii sama loxo bàyyi yor sel su ma comptabiliser ak client bi damay laalaat sel raxas sama loxo ba mu set waaw masque yi moom bu ngi gendarmerie Kër Massar laa noonu laa ci laa delloowuñu ma ko noonu laa ci toll fanaan laa kaso bu bët set fay quinze mille ba rek masque yi dañ koo nangu dañ koo nangu dañ lay bàyyi nga tàggatoo waaw jërëjëf li ngi leen jërëf jërëjëfal bu baax waaw ñi kontaan seen liggéey bu baax ndax yéen a ngi ciy góorgóorlu bu baax li ngi ñaan organe presse bi ngeen bokk suñu borom boole ci organe presse yi li jëm ci kanam Oke, barke seigne touba ok dañ koy jaajeufal bu baax baax mu nekkoon cri de cœur ko xamantene ben père de famille la doon yëngatu ci li nga xamantene mom modi walum di alimentation di jaay lek mais biñu ñu fi nga xamantene mom modi marché cœur Massar bi dafa dem defar ay maskam pour jaay pour protéger ñi nga xamantene ñom ñoy askan bi pour ñu mucc ci jangoro ji di coronavirus waye nak mom dañ ko ramass ci jaay masque yoy mu doon jaay ba fanan na fele nga xamantene mom modi di ca kaso ba fay 15000 te masque yi mu yoron aussi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa police delloowuñ ko ko nee nañ loolu du seen décision ci mairie bi kon yaakaar naa gouvernement bi yéen a ñuy dégg ngeen jàppale bu baax a baax ñi nga xamante ne ay marchands ambulants lañ parce que lii ci la ñuy suturlu pour jàppale seen famille ñu dañuy dem xooli keneen rek ba xam lan la wax ci jàngoro ja